الله أكبر الله أكبر أدلت أرننتي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مي waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay soxnaam dars bi ñu génn ñu ngi nekkoon ci dundu yaay Xadija jeexalaguñ ko incha allah dañuy àggale dundam doonte mën naa nekk ay dars yu bari ala kulli haal gis ngeen yaay Xadija radiyallahu anha fi mu mujjoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon gis nga ni Khadija mi ngi tàmbale di labat yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Khadija nekkoon jigéen joo xam ne misaal bu kawe la waaye misaal bu mag la ci jigéen ñépp nag rawatina jigéenu Màkka amoon na place bu kawe waaye amoon na alal ju bari yoroon commerce boo xamante ni ala kulli hal commerce bu dox la góor ñeeg jigéen ñi ñépp dañu doon ñëw ngir bëgg Xadiija dimbale leen ndax jigéen la joo xamante ni yàlla defal na ko barke ci alalam waaye ak loolu lépp nag Xadiija radiyallahu anha moom it mi ngi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bokk ci ñi koy liggéeyal ndax doon na dégg ñuy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam askanam ak askanu Xadiija benn la ñoom ñaar ñu ngi bokkee ci maamam bi ñuy wax Qusay Qusay ibn Kilaab Xadiija Qusay ibn Kilaab maamam la waaye Qusay ibn Kilaab boobu tamit maamu yonante bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon Khadija digganteem ak yonante bi mbokk gu wér la mbokk lañ ci deret waaye fan la Khadija di jaar ba jot yonante bi sallallahu alayhi loolu moo nekk ci xelam moo tax moom Khadija mu bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi koy liggéeyal mu yónnee. ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daal di ñëw boobu yónnee guñ ko waaye boobu yonent bi dugg na vingt ans yu teg Khadija ne ko man dey dama laa bëgg a proposer liggéey ak yow ndax Quraysh xale yu góor yépp maa leen di jël ñuy liggéey dama bëgg nga ñëw ma jël la nga liggéeyal ma ma proposé la lenn li may fay say moroom ma fay la ko ñaari yoon maanaam bu fekkee vingt cinq pour cent laa doon fay keneen yow mën naa laa fay cinquante pour cent yonent bi sallallahu alayhi ne ko xaaral ma dem waxtaan ak sama baay tax muy Abdullah bi yonent bi ñëwee wax baay taxam Abu Talib neko man kat Khadija neena na ñëw liggey ak mom mu fay ma ñaar yoon li muy fay liggey katam abu talib neko hada rizqun faqahu allah ilayk nangul wërsëg la bu yàlla watat indil lako ko jëlal yow ño xamanteni ñu ngi liggey ñu leen di fay 25% yow ñu proposer 50% kon lolu salaire bu bax la daa koy jël yonent bi ñëw ne ko d'accord na commencé nag war a liggéey ak Xadiija te boobu nekkagul borom këram waaye takku yonent bi ak Xadiija fan la jaar Xadiija xamoon na ni yonent bi ku dëggu la xamoon na ni waa Quraysh ci seen bopp dañ doon jël seen alal di ko dénk yonent bi dañ naan Muhammad al Amin commerçant yu mag yi seen alal dañ daan ñëw dénk ko yonent bi ne ko dencal ñu ko lan moo tax xam nañu amaanatuhu wa sidquhu wa wafaauhu bil ahd xam nañu yonent bi ku jub ku dëggu la waaye du wor kon yéefar li ñuy bon bon bëgg nañu jikko ju baax moo tax ñuy dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seeni alal Khadija commencé nag bëgg a liggéey ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ba mu koy liggéeyloo am na lum mu bëgg ci yonent bi boobu da ko bëgg a labatee xel dégg na njubu yonent bi sallallahu alayhi wa waaye fan lay jaar ba yonent bi nekk ci këram loolu la Khadija di lijjanti ndax bu leen fàtte dars bii paase déggoon nañ bi Khadija géntee géntam bu doy waar boobu Khadija dafa géntoon jant bi daanu digg këram leer nañ Khadija daa daw ci doomu bàjjanam biñ naan Waraqatu bnu Nawfal an Nawfali pour mu firil ko gént bi waraqa ne ko li nga wax bu dee dëgg bu gént gi dee dëgg day kon yonent mujjug jamono bi mooy doon sa boroom kër léegi Khadija commencé na di soupçonner tegtal yi muy am mi ngi koy wan Muhammad ndax njub gi baax gi ak yi nekk ci moom moo tax jigéen ju ñor day ut góor gu baax ngir mu nekk boroom këram ndax teraangaam ëllëg ci la nekk ay doomam baax ci la nekk Khadija nekk jigéen ju bëri alal waaye avant muy ànd ak yonent bi am na boroom kër sëy ak moom kooku gaañu bàyyil ko alal ju bëri maanaam fi alalu Khadija jaar dafa njëkk a sëy ki mu sëyal gaañu te ki mu commerçant bu mak la won Khadija donno alal bobu benen góor takkat ko momit nek borom alal de baye ko alal joju loolu moy source alalu Khadija waye Khadija nak commencé di out ay pexe yu muy jaar ba gëna xam Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mu jubóog yonent bi pour yonent bi war koo jaayal léegi Khadija jël benn jaamam bu ñuy wax Maysara Maysara moom ngeen dégg olof yi naan Maysa Maysa boo dégg mooy Maysara Maysara li muy tekki mooy ku yàlla jàppandal ay mbiram loolu mooy Maysara Khadija ne yonent bi dama bëgg nga ñëw dem Saam soo demee saam nga jaayi foofu waaye mu boole koog maysara ne ko yow ma la dara lu dul rek nga di ma xoolal muhammad ni muy liggéeyee ni muy doxalee boo ñëwee nga nettali ma ba mu ko defee yonent bi ànd ak may sara ba ñëw saam bi ñu ñëwee saam ci luuma bi jaaykat yi kenn ku nekk tànn bërëb ci biir marché bi di toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi marché bi am na benn garab bu nekk ci càmmoñu marché bi foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw teg darab yi mu doon jaay ak morso yi ak bagage yi toog ci keppaaru garab gi di jaay bi mu toogee foofu di jaay làbbe bi ma la waxoon muy bahira rahib gisaat na yonent bi sallallahu alayhi bi ko làbbe bi gisee mu toog labbe bi woote bi mu woo maysara ne ko xale bi may maysara ñëw mu ne ko man hada rajul alladi taxta nazala taxta hada hadihi sajara bi maysara ñëwee mu ne ko kee toog ci ron garab gi kan la maysara ne ko innahu rajulun min quraysh min ahli alxaram kii kat waa quraysh la waa Makka la waa Quraysh la waa Makka la labbe bi daa wax Maysara ne ko maa nazala taxta haadihi shajara qat illa nabi mu ne ko gis nga garab bii ma lay wax nii maa ngi la ciy wax dara garab gi kenn musu fee toog lu dul ko yàlla yónni ñun yahud ni ñu seetloo garab gi ku fi toog keppaaru rek yàlla dina la yónni ngay yonant kon aman na kii day nekk yonent Maysara daa di dégg loolu yonent bi nekk ci njaayam Maysara di ko xool naaj waa ngi tàng jër waaye ñaari malaaka ñu ngi ànd ak moom di ko keral yonent bi jaay marchandise am mu jeex takk mu ñëw indil Khadija njaay moo xamante ne alal ju bëri lool la wan ko ak njub léeg-léeg am na ñu daan ñëw ne Xadija dama perte fii dama def lii dama def laa yonent bi ñëw jox ko li mu jaay lépp mu lépp jar lépp baax lépp jaar yoon Xadija nag xam ni góor gi mooy góor gi ñuy ut ndax góor dafa war a jub dafa war a yor melokaan yu baax kon Xadija tàmbale naa am ay tegtal ci ne kat kii ku ko am borom kër dinga am borom kër gu baax moo tax jigéen mën na labat góor waaye xel lay labate xam ngeen yonante bi sallallahu alayhi wasallam nee na wa in ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuh nee na bu góor ñëwee di labat sa doom mbaa muy labat ci sa njaboot kenn testeel diineem su amee diine jikkoom rafet may ko jabar waaye waxul nga xool ndax تغ لام غير لام تكولور لام سيرير لام جاغو لام نانغام لا دين الاسلام خمو دورو داخ كات ان اكرمكم عند الله اتقاكم كي غنا تيد تي ين القران نينا موي كي رغال يالا خديجه نك فنان غودي جي نك دي خلات نان لاي ديف با محمد صلى الله عليه وسلم waye li nek ci xelam moy Muhammad maa ko mag kii nan laay fexe mu nekk sam boroom kër magee naa ko 15 ans Xadija xel mi nekk ci yooyu kii xale la ndax kii dina xam sëy ndax kii du ma sëy ak moom nit ñi duñu coow ndax nangam ak nàngam loolu nekk ci xelam Xadija jaaxle lool bëgg na yonent bi lool comme boroom kër waaye daa mag yonent bi nan lay def ba sëy ak moom. koku politique bu leer moo koy sottil mu xëy bët fet nak mom Khadija jaxle wit lol di xalat motax xarit moy ki lay digel lu bax di la ca jitu di la tere lu bon di la ca jitu Khadija bi mu toge jaxle xamul fu muy jaar mu am ben xaritam bu ñu seet si ko xaritam boobu mooy Nafisa bintu Munayh wala ñu ne Nafisa bintu Munabbah ñaar yëpp dañ koy wax Nafisa moomu moo nekkoon xaritu Khadija bi mu ñëwee seet si Khadija nag Khadija jaaxle na ko man de damaa jaaxle mu ne ko lan moo la jaaxal mu ne ko man bëgg naa sëy waaye nu may def ba sëy ak Muhammad loolu jaaxal na ma. légui nak amna problème fan lay jaar Nafisa ne ko loolu rek rek rek nga bëgg mune waw mune ko baxna man dina ko dox kon Nafisa mo doxal Khadija yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dalal Khadija ne ko Khadija bul sikkel sa bop ya gëna rafet ci Quraysh ya fi ëpp alal. ci famille yi gën nga bokk boroom ngor nga boroom taar nga kon sëyeeg Muhammad warta nekk problème baal man dinaa ko dox Nafisa moomu moo ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog ci wetu kaaba gi bi mu ñëwee fekk yonent bi toog Nafisa ne ko yaa Muhammad maa yamna'uka an tatazawwaj ne ko yonent bi muhammad yonent bi ne ko naam mu ne ko lan moo la te takk jabar allahu akbar lu tee nga takk soxna yonent bi sëgg noppi ba ci yàgg mu ne ko doomu wuyu yonent bi ne ko man liggéeyuma jirim la yoruma lu ma takkee te kuy takk jabar il faut nga yore loo ci def Nafisa ne ko dama lay laaj ndax bëgg nga jabar wala déet mu ne ko waawaaw bëgg naa jabar kay Nafisa ne ko léegi dama la bëgg a laaj nan ngay def fa in kufiita wa du'ita ila maal wal jamaal wal sharaf wal kafaa fa hal tujib Nafisa ne yonent bi su fekkee wan naa la jigéen joo xamante ni maas ngeen ci kem boroom alal la ku rafet la ku tedd la te kat kookee sa kem la ndax danga nga d'accord yonent bi ne ko waman kooku kan la jigéen ji ngay wax nii jigéen ju taaru ju am alal ju am teraanga bu jekk lool kan la Nafisa ne ko Khadija bintu Xuwaylid Khadija yonent bi ne ko in waafaqat faqad qabiltu yonent bi ne nafisa su fekkee ni moom xadija d' accord na man d' accord naa pour denc ko rek nafisa daa di tëb daw li mu am na ko bi mu ñëwee fekk xadija toog mu ne ko xadija santal sa bëgg-bëgg yàlla yombal na mu ne ko lan mu ne ko wax muhammad ba nee na boo d'accordee moom d'accord na yonent bi nag dem këram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxtaan ak baal ca Abu Talib ne ko kat Khadija day nee na dafa bëgg ma denc ko comme soxna léegi nag ma ne ko damay ñëw ma laaj la Abu Talib ne ko Muhammad maanaam mu ne ko yàlla day bu la watatalee wërsëg indil la ko danga war a gaaw nga jël ko xadiija góoru xuray si ñëpp ñi am alal bëgg nañ ko ku dem mu dàq la yow nag xadiija moo la sàkku yow jigéen bu la nobee dana la sëyal mu ne waaw mu ne ko baal ma waxtaan ak sa papa Hamza ñu dem labatal la ko yonent bi sallallahu alayhi ne ko waaw moo tax Abu Taalib ak Hamza ñoom ñoo dem waxtaane mbiru Khadija ba ñu may leen Khadija fekk yonent bi li mu jot a liggéey bariwul waaye Khadija ulama taarix dañoo wax ñaari mbir ñu ne bi ko yonent bi takk fekk na pàppam gaañu muxtamal mën naa nekk bokk na ci li gën a wér am na ñu ne fekk na pàppam di dund waaye pàppam dafa bañoon ndax yéefar bu ñuul la woon buggul woon muhammad mais li wér mooy fekkul sa papam léegi kan la fa fekk baytaxu xadija bu ñu wax amr ibn asad amr ibn asad moom moomu ci moom lañu labatee xadija xadija def ko baay bàyyee ko kilifteefam kookee moom moo may xadija yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ay kàddu yu ñu wax ci xutba yi bi ko Abu Taalib di labat li mu waxoon bi Hamza di labat li mu waxoon waaye Amr ibn Asad lan la waxoon yooyu yëpp nag dañ cee wuute mais ala kulli haal Abu Taalib ak Hamza ñoom ñoo labatal yonent bi Khadija ñoom ñoo ko ko doxal sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bisu takk ga xadiija mboolem luy gëléem rendi na ko mboolem luy mbégte def na ko woo tëggkat yi ñu tëgg woykat yi ñëw nañ ñaankat yi ñëw nañ ndax boroom alal bu toll ni xadiija am góor gi mu gën a bëgg ci kaw suuf mu di ko takk kon bu amee alalam dana ko ci tuur waaye dana ko ca sotti màkk yépp am xew kontaan lan moo xew يونت بي صلى الله عليه واله وسلم موم لا ني خديجه صلى الله عليه واله وسلم كون نك تكتال وننا ني نك ام المؤمنين خديجه موي جيجن جيجن نيورتي جامونوم ndax la alalam di bari la xelam di yaatu la askanam di barkel taxut mu réer jigéen ñu bari bu ñu amee alal dootuñu xam fu ñuy teg seen jigéen ñu bari bu leen barke wuysee dañu koy dàq waaye Xadiija yàlla wërsëgal ko mu sàkku góor gu mel ni Muhammad góor gu ragal yàlla bu nekkee sa borom kër dana la yee julli dana la fàttali julli dana la fàttali ragal yàlla du la saaga ndey du la toroxal du la def lu bon du la fi bàyyi dem di mooy ak beneen jigéen moo tax jigéen ju ñor da ngay ut góor gu ragal yàlla sa xel du ñëw ci moom mukk ak lu ngeen jote jote xam nga ni sa jëkkër du dem doxaani ak lu ngeen jote jote xam nga ni sa jëkkër du dem di topp jigéen ñi ak lu ngeen jote jote xam nga ni sa jëkkër ragal yàlla moo gënal muy def lu neexut yàlla kon jigéen ju ñor nii lay utee jëkkër waaye nga dem uti góor goo xam ni ab waykat la wala fecckat la mbaa ab mbërëm làmb la wala fokat la day sëy ak yow ñaari fan ñetti fan fooyee la doo ci mën dara boo waxee mu ne la yaa ma toppoon kon bokk na ci ñor jigéen sauvegarde sëyam waaye sëyee ragal yàlla Xadiija nag biir sëy bii mi ngi ko lalee ragal yàlla ndax li jiitu ki muy sëyal moo ko mag par expérience yonent bi ndaw la Xadiija magee na ko 15 ans yonent bi war a ànd ak moom kon Xadiija moom mooy meneur bi mooy mëne pour sëy bi dox la mu xamoon démb nag ci sëy loolu la tàmbalee doxal digganteem ak yonent bi yonent bi bëgg ko lool respecté ko lool waaye nag nekk borom kër yonent bi nekk loon borom kër goo xam ne alal moo koy indi ci Xadija déedéet moo tax yahud yu mën a fen yi danoo xamut boo déggee ñoom bokk na ci wax yi ñuy wax dañ ni Muhammad ñàkk moo tax mu takk xadija ngir bëgg am déedéet loolu yonent bi faalewut ko yonent bi bu doon loolu ay montagne ñëw nañ ci moom ne ko bu la neexee ñu doon wurus ak jama yonent bi ne ko soxlawuma kon yonent bi ngor la sëyee ak xadija radiyallahu anha beneen bi non non boobu yónneeguñu yonent bi bi ñuy tëgg ci gi boobu amagul ndax yonent bi yónnee guñ ko yonent bi dana defaat ak Khadija presque quinze ans ñu dog koo yónni kon ndax yonent bi vingt cinq ans la am see Khadija te ci quarante lañ koy yónni kon kay xam nga ni diggante bi dina yàgg léegi nag Khadija ànd ak yonent bi yonent bi doylu lool xoolul alal bi Khadija am sàkkuwut alal bi Khadija am. waaye jikkoom ak melokaanam ak ragalam yàlla moom la jiital ci diggam ak Khadija Khadija bëgg yonent bi lool ba bëggul ku xool yonent bi bëggul ku kàddul yonent bi dara yonent bi nag am wéeruwaay bu dëgër ndax jigéen ji ëpp alal am askan waa Quraysh ñaamunu Khadija ndax bu ñu bëggee dal ci moom fekk Khadija ngi nii danañu daw ndax boo ñëwee dal ci Muhammad te kii soxnaam mooy jël sa doom mu liggéey kon doo ko doo ko torturer loolu moo tax Khadija moo nekkoon wéeruwaayu yonante bi sallallahu alayhi wasallam bu ëppoon alal ci kaw suuf te yarul melokaan yu baax yonante bi du seeg moom moo tax taar bi yàlla may Khadija ak xel bi ko yàlla may mënee na ko waaye jëfee na ko ci biir sëyam léegi nag mu nekkal ak bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di ko sàmmal alalam di ko liggéeyle waaye di ko jàppale Xadija da daan dégg yonent bi léeg-léeg muy waxtaanee ñaari jigéen Xadija seetlu na fu yonent bi waxee rek tudd ummu ayman ne innaha ummi baada ummi Xadija seetlu ko léeg-léeg bu waxee tudd Halimatu Saadiya xam ngeen Halimatu Saadiya moo nampal yonent bi léegi ummu Ayman bi yaay yonent bi gaañoo Madina ummu Ayman moo bootoon yonent bi jëlee ko ab Abwa indi ko Makk moo tax yonent bi ne ba ma ñàkkee yaay ummu Ayman mooy sama yaay mu am respect ci moom Xadija képp ku mu dégg yonent bi di wax ci yow lu baax rek daw na def ci yow lu baax ndax ñu la fi dese comme ay goro. ndax ay man yonent bi yaayoo na ko xalima yonent bi yaayoo na ko benn bis xalimatu saadiya jóge saadiya dëkk ba bekkoor ñàkk jur gi dee mbay mi doxut kenn amatut loo lekk xalima jaaxle na xamut nu muy def mu ne naa dem seeti sama doom ja muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan xalima jël as mbaam su ñàkk solo daa di koy war dem màkka di làcce ba nu wan ko kër xadija bi ñu ko wañee kër xadija umu wala xalimatu saadiya daa ñëw bi mu ñëwee waxtaan fëgg bi mu fëggee ñu ubbil ko laaj ko kan la mu ne xalima yonent bi dafa dégg baatu xalima rek tëb daw bi mu dawee rek jàpp ci mbaggu yaay ji téye ci loxoom ndeysaan xëcc ko indi ko jël kaalam teggi ko lalal ko ko Tek Halima mu tok mu diko ko laaj yaay naka wa kër ga naka wa saadiya naka dëkk ba khadija mi ngi seetlu bi yonent bi di laaj yonent bi bi muy laaj xalima eh, rangoñ yaa ngi tuuru ndax yonent bi fu mu tuddee rek jooy ndax teranga bi ko halima defal dafa rëy ki la nampal mooy sa yaay khadija bugul yonent bi am naqar khadija jigéen di ñor la bi mu seetloo yonent bi di wax ak halima di ko laaj xalima ne ko muhammad dëkk ba day dara amut fa mbay mi doxut jur gaa ngay dee kenn amul ci loo jàpp metti na lool bekkoor na moo taxoon ma ñëw ni damay dem seeti la ndax fi na ne nii jaaxle am na xadija dafa dégg loolu rek radiyallahu anha mu daa di daw bi mu dawee nag gis na ni buntu alal ak buntu jaamu yàlla mi ngi nii sa boroom kër ki muy yaayoo nga dimbale ko loolu daldi nay baax Xadiija daal di daw bi mu dawee nag dégg yonent bi di wax ak moom sallallahu alayhi wa sallam Xadiija jaw daw dem indi ñeent fukki gàtt la daw tekki ñeent fukki gàtt suñ ko doon wax jamono bi dañ naan ay xar wala mën naa nekk ay xar ak i béy ba muy quarante xadija ñëw indi ko bi mu ko indee jël gëléem gu mag boole ci tibbal xalima ay saaku dugub ay saaku mboq saaku sànqal tibbal na ko tibbal ba tibbal ko diw ñor yonent bi sallallahu alayhi wasallam gestu xadija ne ko lii maa la ko jox ngir nga jox ko sa yaay yonent bi rangoo ñuy tuuru balaal dënnam ndax xam na ni lii ko yaayam ji diis amut ko waaye am na boroom bu ko am waaye fekk na fi jabar joo xam dana ko dimbale li ngay njëkk a jàngatee ci loolu ndeke jigéen ju baax alalam warta fekke gàccee boroom këram jigéen ju baax alalam warul fekke gàccee boroom këram ndax kat sa gàccee borom kër mooy sa gàcce bu fekkee da seetaan sa boroom kër torox yow yaa torox moo tax mu daw teralee yonent bi loolu yonent bi kontaan lool lool lool daa di ommat xalima xalima nekk màggat ñu teglal ko bagage yi ba gëléem yi fees del jiitalal ko gàtt yi boole koog ñoom Zayd ñu ànd ak moom yonent bi kontaan lool sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi Zayd ibn Saabit wala Zayd ibn Haarisa xam nga moom la ko dox Zayd ibn Muhammad Zayd moomu Khadija moo ko moomoon li ko booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la Khadija dafa am benn doom bu ñuy wax Hakim Ibn Xudaam Hakim Ibn Xudaam magu Khadija moo ko jur ñii ñu ne rakkam bu jigéen moo ko jur daa demoon suuqu Ukaaz marché boobu ñuy wax Ukaaz nga xam ni sénégalais yi dañ koy toppandoo naan Okaas. fekk du okaas ukaas la ba mu fa demee mu gis ñuy jaay benn jaam bu góor bu taaru bu am kàttan muy zeyt hakim ibn xusam jënd ko bi mu ko jëwee ñëw may ko bàjjanam xadija te ko bàjjan comme yow jigéen nga amoo ku la jàppale ki mën na laa jàppale ci say liggéey ak say bagage léegi zeyd moomu ak maysara ñoom ñoo nekkoon ak Khadija waaye bi yonent bi ñëwee Zayd nag def ko papa bëgg yonent bi lool di seetlu yonent bi bu waree dem dafi xalwa Zayd moo koy dimbale da koy préparel ndox préparel ko lekk ëmbal ko bagaas yi jàppale ko ko yonent bi dem ba ca àll ba ab montagne ne ko dëppal Zayd dëpp yonent bi nekk foofu nag ngir lan ngir wéetal fa boroomam subhanahu wa taala xam ngeen ni julli wàccagut yónnee guñu ko ci lan lay def xalaat lay xalaat moo tax bokk na ci jaamu yàlla yi gën a rëy mooy xalaat ci mbindum yàlla subhanahu wa taala borom bi nee na sa nurihim ayatina lil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alxaq borom bi nee na danaa leen wan ci gox ya ca montagne ya man yàlla man may dëgg kon yonent bi di xalaat ci nan lay jaamoo boroomam léegi na Khadija seetlu na ne Zayd daa bëgg yonant bi lool Khadija ne yonant bi sallallahu alayhi wasallam léegi jëlal Zayd may naa la ko muy sa doom loolu moo tax ñu doon wax Zayd ibn Muhammad loolu moo indi baatu Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ko mayee nag. yonent bugul deg dégg baatu jaam déedéet nangul ken nek jam yonent bi gorel ko defal ko taranga askanale ko bopam ñu nan zaid ibn muhammad ken dodul wax rek zaid jam la waye legi zaid ibn muhammad bi ko defé khadija ñor lol legi nak khadija bugul yonent bi jaxle bugul mu am jafe-jafe Khadija radiyallahu anha doom bu yonent bi am Khadija ko jur ba mu des kenn Khadija ki mu njëkk a taawloo moog yonent bi boobu yonent bi yónneekuñ ko doom ju góor lañu taawloo muy Qaasim Qaasim moomu lañ doon dàkkantale yonent bi naan ko Abal Qaasim ba léegi mooy taawam bu góor ginnaaw ga mu teg ca doom biñ ñaan Zeynab Qaasim moom ak Zeynab topp ci Roqayya topp ci Ummu Kalsum topp ci Fatima topp ci ñii ñëpp judd nañ avant ñuy yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Zeynab Roqayya Ummu Kalsum Fatima ginnaaw bi ko yàlla yónnee nag ci la Abdullah judd doomam bi ñu Abdullah moo taxoon ñu koy dàkkantalee at tayyib at tahir kooku rek moo judd ci risaala bi mais ñu ko mooy bi ñuy judd yónnee guñ ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibnu abbas nettali na ci njabootu yonent bi mu ne waladat khadija li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gulamayn wa arba'a niswa nee na khadija am na ak yonent bi ñaari doom yu góor ak ñeent yu jigéen xam ngeen yonent bi juróom-ñaari doom la am ci kaw suuf ñaari doom yu góor ak ñeenti yu jigéen la Xadija am ak ki ci jiitu mooy Qasim ci góor ñi ak Abdullah Abdullah moo judd ci risaala bi moom la ñuy wooyee Tayyib di ko woowee Tahir après Fatima Ummu Kalsum Zeynab Ruqayya Ibrahim kan mooy yaayam Mariyatul Qibtiya moom mooy yaayu Ibrahim waaye nag doomam yépp bi ñuy judd fekkuñu ñu yónni ko ba mu des abdallah waaye doomam yépp nag fekke nañu risaalaam nag yàlla dimbale ko ñu tuub ñan ak ñan la yonent bi ñeenti ba juróomi doom dee nañu daanaka doomam yu góor yi kenn fekkewu ci risaalaam jigéen ñi ñoom fekke nañu bi ko yàlla yónnee ndax doomam yu jigéen ñëpp sëy nañ ñoom ñëpp jéggul jébbalu nañ dugg nañ ci islaam Ruqayya ak Ummu Kalsum kan mooy seen borom kër Ousmane Ibn Affan Ruqayya la njëkk a takk Ruqayya gaañu ñu may ko Ummu Kalsum Ummu Kalsum gaañu yonent bi ne ko su ma dese woon dama lay may ñuy dee ma lay may ñuy dee kon loolu mooy goro bu baax Ousmane ibn Affan moom la ñuy dàkkantalee Zunnurayn mooy ñeenteelu xalifa yonente bi nekk na goro yonente bi ñaari yoon moo denc Ummu Kalsum waaye moom moo denc Ruqayya Zeynab Abil Aas ibn Rabi' moom moo ko takkoon doomam bi ñuy wax Zeynab Abul Aas ibn Rabi' moom moo ko takkoon Fatima ali ibn abi talib radiallahu an léegi nag yenant bi mboolem kuy doomam suul na la avant muy génn àdduna ba mu def kenn doomam yépp suul na leen góor ñi dañoo teel a gaañu dañoo teel a gaañu ibrahim la tudd mu judd guddi mu xëy tudd ko fajar kooku ma nga amee ca madina dafa xëy ne sahaaba yi sama borom wërsëgalee na ma doom ju góor bi tuddee naa ko sama ibrahim moo dom doom mën naa juddu léegi nga jox ko tur léegi mën naa nekk su la neexee nit nag nga bàyyi ba semaine mën naa nekk kon ibrahim mi nga xamante ni najashi moom moo jëloon maria qibtiya may ko yonent bi Maariya moomu moom moo am Ibrahim Zeynab gaañu na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñuy sang Zeynab bi Zeynab gaaño ñu koy sang keroog dafa ñëw ba ci buntu morgue bi jigéen ñi sang mu ne arsilnaha bi sidr wal witr sangee leen ko fidem ak lu tool fidem lan moo tax ñu def ci sang neew ñom amuñu woon saabu seen jamono te da fay yobbu xet xet lu mu bon bon bo jele ndoxu siddeem xobu debu debbu ko bam baax boole ak ndox bo sangé borom rek mu jeex siddeem mit démb ci jamono yonenti bi jigen ñi ku ci gan ngant ba set ku amoon ngànt ba sa ngànt jeex booy sangu da sangoo siddéem ba pare nga doog a sangu set lan moo tax pour xet bi dem am na te ñoo xam ni dañu daan sangu janaba ba pare doog a sangu siddéem ngir bañ a am xet moo tax ndox mu ñu booleeg siddéem dafay yóbbu xet kon doomam yëpp suul na leen ba mu des Fatima Fatima rek mom la yonenti bi gañu fatima di dund juróom benn weer fatima doog a génn àdduna radiyallahu anha kon khadija ndeke kon doom yi mu am yépp moo ngi yonent bi sallallahu sallam moom rek la amal doom yonent bi ginnaaw gi amaatul ak doom benn jigéen budul mariya ulama siira nag am na ñu ne aïsa am na biir bu avorté aïsa am na doom doom mu avorté ñii ñu ne góor la ñii ñu ne jigéen na ala kulli loolu dara leeru ci mais li wér daal mooy Xadija la amal doom ak kan ak Maria al Qibtiya kon doom yi mu am ak Xadija amu ko keneen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Xadija gaañoo àggaguñ ci mu daal di jaaxle mu ne jigéen ji moo ma jàpp ba ma ñëpp bàyyee moo ma jox alalam ba mu ñëpp xañee seen alal moo ma bàyyee biiram ma am ak doom ba ma jigéen ñëpp. xagne seen biir kon yonent bi fi khadija agon ci mom benen jigen daw fa ag ci mom kon radiyallahu anha bi moy ñaarelu dars ci dundu khadija lan motax dundu khadija nara nek ay dars yu bari moy premier soxna yonent bi dafa ak ay circonstances yu bare bare bari laalla insha allah dars yi di ñëw mën naa am bu soobee yàlla mu jeex yàlla ñu yàlla jamal jàmmale way liñ ci jangate moy ndeke jigéen dafay sàkku barke ci borom këram day sàkku àjjana ci borom këram waaye day sàkku ay doomam am barke it nag ci borom këram xanaa xamuloo respect bi nga jox sa borom kër day feeñ ci say doom olof nee na ku ñuluk sa jëkkër yàq sa doom olof moo ko wax ku ñuluk sa jëkkër boo yàkkee rek sa doom nga yàq kon ni nga mel ci sa boroom kër noonu la say doom di mel jigéen ñi baax ñëpp am teraanga am respect ci seeni borom kër dañoo jur ay cadre dañoo jur ñu ragal yàlla dañoo jur ay wàlliyu kon jàngat bi gën a rëy ci jàngatu dund jigéen ñële mooy ndeke dañoo baaxoon moo tax yàlla defal leen barke hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa habibina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba darsi bii di ñëw incha allah نيجي تامبالي تي بي يالله يوني يونت بي موي شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة إن شاء الله أجمع بي دي نيو يالله يالله جامل جامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته